أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere sunu borom subhanahu wa taala bi ba tey ñu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël ñaari aaya aaya 174 175 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi nu ciy jàngal mbokk yi ñeenti mbir bi ci njëkk mooy ad daawatu al islaamiya daawatun aama fa hiya lil abyadi wal asfari wal aswadi wal ahmari ala haddin sawa sunu boroom mu ngi nuy jàngal tey ne woote bi di woote lislaam diine jii de lislaam daawatun amma woote la boo xam ne ñépp la nekkul comme ni ko nasaraan yi di waxee ne christianisme pour ñoom kese la wala comme ni yahudi yi di waxee ne yahudiya ñoom kese la amma al islaam nag ñépp la wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa naziran yàlla moo ne yonent bi fépp laa la yónni ci ñépp laa la yónni ñu weex ñi ñu ñuul ñi ñu jaune ñi ñu xonq ñi ñépp képp ku yeewu tey ci kaw suuf message u islaam war na yegsi ci yow daawa al islaamiya war nga cee jot loola tax daawa bi daawatun amma fépp la war a mat loolu mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam loolu leer na ci moom nañ loolu tax lan la wax gaa yi ba mu ajee aj gu mujj fal yuballighi shaahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke tey wax leen ko mbir mi wax leen ko ñi ko ñi ko jotagul yonent bi wax na ne ballighu anni wala waaya jottali leen ma donte ne benn aaya la beneen bi mooy mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind na sax muluug yi ay ay lettre buur yi bind na leen yonent yonent bind na leen lettre gis nga yonent bi tey bu nekkoon fii ci àddina bi président yi ngeen di gis ak roi yi ngeen di gis ay nangam nangam yi wallahi dana leen bind lettre na leen tuub leen ndax yonent bi bindoon na lettre ñu leen gën a ngande ñu leen gën a rëy ñu leen ëppoon doole ñu leen gënoon ñàng yonent bi yónnee la loon lettre ne leen aslim aslim jébbalu leen mucc kon risaala islaam amul ku ne non yonent bi yonent arab yi la yow da ngaa réer ñu laa war a ñaanal yàlla ku wax ne islaam warul yegg si fii ñun dëgg-dëgg ñun africains yi dañu war a am sunu yonent mu ñuul comme ñun loolu réer la loolu réer ku réer mooy wax loolu ku déggul diine mbirum diine du mbirum xeet bu doon mbirum xeet la yàlla du alak abu jahlin ak abu lahab yëkkati bilaal est-ce que xam ngeen ne yàlla dafa yëkkati bilaal wala yonent bi dugg na àjjana dégg tànk bilaal di koroj koroji te mu ngi dund wala yonent bi del siwaat ne ko waaw yow bilaal yow lan nga def ba may dégg sa tànk mu yëngatu aljanna allahu akbar mu ne ko saa yu ma njàppee njàpp mu tooy julli ñaar raak kon mbir mi du mbirum xeet du mbirum yey couleur du mbirum place mbir mu mbirum yàlla te yàllaa ko jottali mbooleem mbooleem yonent mbooleem nit yàlla subhanahu wa taala tey jii ci kaw suuf yàlla moo jottali daawa islaam mu nekk am ñëpp pour ñëpp la fépp fu nit di yeewoo war ngaa yëg ne yàlla dafa yónni yonent bi ci yow sallallahu alayhi léegi nag mu des yonent bi dem na yenent bi demee bàyyi fi sahaaba yi sahaaba yi xam ne daawa bi àmma la ñu tasaaroo ci kaw suuf ñaata sahaaba lañ suulul Arabie Saoudite ñaata lañ soo demee Inde fekk fay bàmmeelu sahaaba nga dem Pakistan nga dem Syrie nga dem Iran nga dem Égypte partout da ngay fekk ay bàmmeelu sahaaba ba Mauritanie waaw ñooñu luñ doon ut foofu ba ñu suul leen fa parce que gëm ne yonent bi dafa bàyyi mbir mi seen loxo te dañ ko war a tas loolu tax keroog ba Aboubacar di dugg ci diine bi Aboubacar waxee ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yonent bi tàllal loxoom Aboubacar daal di ko ciy teg Aboubacar dafa ne yonent mbir mi lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war li ma war moo la war Aboubacar génn indi Ousmane ibnu Affan premier jour deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Maazum troisième jour mu indi Arqam ibnu Abil Arqam quatrième jour mu indi Bilal ibnu Rabah cinquième jour mu indi Saad ibnu Abi Waqas waaw ñun mbokk yi ñun biñ nekkee ci taxaw bi ba léegi kan lañ indi ku nekk laajal laaj bi sa bopp bi nga tàmbalee di dund alxuraan ak sunna ba léegi ñaata nit nga indi ci alxuraan ak sunna wala ñun bokkuñ ci ñuy jottali daaw bi ñun bokkuñ ci ah kay ñun ñii ci lan bokk ndax daawa daawa borom xam-xam dañuy wax ne fardu kifaaya la waaye bi chart mata iza qaama bihi baad bu fekkee am na ñu jóg di woote kon ñeneen ñi mun nañoo bañ a woote waaye bu fekkee comme tey la nga xam ne ñëpp a yaacaaral ñuy xeex diine ci ah daawa fardu ayn far farata la kenn ci ñun amatul droit julli dem sa kër te di nelaw gis dëkk bi di yàqu ni nit ñi dem safara kenn amatu ci droit koo gis am da nga war a wax ak moom mu nangu wala mu bañ ak système bi ngay waxee ak moom waaw ak bi ngay waxee ak moom ak naka ngay def ba daawa bi yegsi ci moom ak xam-xam bi nga toll ku nekk war nga kaa mën a daawa ci yow ni nga tollee loolu ñu naan balaa ngeen daawa da ngeen ngeen di jàngi loolu wérul de ndax loolu saxaaba yi sax dunduñu ko woon amuleen droit wax ci diine parce que jàngu leen non loolu wax ju wérul la laa wax ak ku la ko mun a wax wax na lu wérul saxaaba yi bi ñuy daawa dañoo dañoo jeexal kaamil bi dañoo jeexal saxiil buxaari dañoo jeexal saxiil muslim dañoo jàng abu daawuda ibnu maaja tirmisi dañ ko jàng benn baat la ñuy dégg jottali ji kon yow yonent ba mu yox jottali leen lan la wax balligu an nii wala waaya hal qaala walaw kitaab walaw suura walaw hizib ah ah aaya anta hafiztal aaya wa fahimtaha aywa facile ballig bu fekkee hadis la kas kazalika noonu la rahimallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min as-sami' kon nanu yëg ne daawa islam amma la ñun ñëpp dafa war a jot yonent bi def na li mu mënoon de sahaaba yi def nañ li ñu mënoon war nañu ay fas dawal fas yi ba ci géej gi ñu ne wallahi bu ñu wóoroon ne ginnaaw géej gi ay nit a ngi fii danañ xuus géej gi ak fas yi jottali leen diine ji ñoom ñoom lañ li leen waral ñun ñi ñoo des ñoo yaafuus tey lii waa parti politique yi di def nga xam ne tey boo tourné dëkk bi gis parti yi ñuy jaar ni ñuy jaar ni ñuy ut nit ñi mbooloo mi loolu ñun ñi la waroon ñun ñi ñoo waroon duggi oto ñun ñoo waroon takki rajo ñun ñoo waroon jaar ci mbedd yi di woo nit ñi ci diine yàlla ji mais mala saf ku nekk am nga ku la liggéey li El Hadji Omar di wax nee na ku dee am nga ku la jooy tey ba mu des islam ku dee am nga ku la jooy ba mu des l'islam bi moo tax gis ngeen l'islam bi ni mu yaafuusee niñ koy niñ koy niñ koy niñ koy niñ koy partout gis ngeen parce que jullit yi ci seen bopp ñoom ñoo nasax ñoom ñoo xamatul li ñu yor te léegi incha allah bismillah danañ xam ne li ñu yor xamuñu ko kon daawa bi ñëpp la ku weex ku ñuul ku xonq ku jaune ñëpp ci yem ala haddin sawa ñëpp ci yem la fadlun li arabi ala ajam illa bittaqwa annasu sawasiya ka asnani lmust inna akramakum inda allahi atqakum yàlla waxul ñu arab yi ñoo ñu gën waa quraysh ñoo ñu gën yéen ñu weex ñi nangam wala déedéet déedéet yàlla nee na ku weex gënul ku ñuul ku dul ci ragal yàlla ñaareel bi mooy itlaaqu lafzul burhan ala nabii muhammad sallallahu alayhi wa sallam li annahu bi umiyatihi wa kamalihi alladi la matmaa lilbishri an yatasaamiya fihi burhan ala wujudillahi wa ilmihi wa rahmatihi baat bi ñu boyal muy baatu burhan muy tekki lay alxujja walmuraadu bihi huna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ci yàlla namm fii ci aaya yi ñu war a jàng mooy sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam la yàlla di wax waaw moom mooy lay wi mooy lay wu leer wi lay wu leer wi nga xam ne yàllaa ko wàcce sunu kaw te pourtant ci ñàkk a jàng bu mu ñàkk a jàng ci loolu la ko yàlla matal ci loolu la ko yàlla yëkkati ci kaw mbindeef yépp mu nekk seen sang ci la ko yàlla subhanahu wa taala làmb mbalaan moo xam ne xam-xam la ak yërmande laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ci la ko yàlla làmbee xam-xam ak yërmande mu nekk ku raw ñëpp kon burhaan la lay la wu leer wu ne weng sunu kaw wallahi yonent alayhi salaatu wasalaam su ko yàlla yónni wul woon sax def ko yonent addina bi yëpp xam ne punkal la addina bi yëpp xam nañ ne ku mel ne moom dootu fi am rawatina nag bi ko yàlla yónnee am na borom xam-xam bu bind téere tudde ko alxaaliduuna mia téeméeri nit la tànn ci addina bi téeméeri nit mu ne ñii deewuñu téeméeri nit kooku du ab jullit de waaye bi muy wax ñooñu nga xam ne ñëw nañ pour defar adduna mu tànn ci téeméer ñi ñëw pour defar adduna bi pour nit ñi jub normal pour adduna bi réglé mu ne azamuhum muhammad te pourtant kooku du jullit de du jullit ab nasaraan la li tax sax ngay wax xam ne mbir mi dafa garaaw yonentam bi nga xam ne moom moom la gëm muy Isa troisième la ko def Paul la def deuxième nga xam ne Paul mooy taalibe Isa maanaam mu ngi mel ne ñu ne saxaaba bi moo raw yonent bi parce que lu tax parce que Paul moo tas christianisme parce que Isa 33 ans rax ko yàlla yëkkati lii ngeen di gis la Paul moo ko def moo tax moom mu yëkkati Paul ci kaw sax Isa kon mbokki jullit yi dëgg-dëgg suñu xamoon kon yonent bi ñu am suñu xamoon kon ki ñu yàlla yónni kon wallahi du nu mel nii nu mel tey ñetteel mooy alquranu nuur waaw parce que alquran rek mooy nuur benn borom koo xam day wax ummatun ربها نور رسولها نور كتابها نور فكيف نعيش في الظلام فكيف تعيش الأمة بالظلام ربها نور رسولها نور كتابها نور خير woo xam ne seen borom leer la seen yonent leer la téere ba leen yàlla jox leer la xeet woowu nan lañ war a dunde ci lëndëm yàlla moo ne leer la allahu nuuru samawat wal ard kon rabbuha nuur yonente ba nuur qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin ar rasulu nuur kon yonente bi leer la alquran bi ci boppam leer la wa anzalna ilaykum nuuran mubina fa aminu billahi wa rasulihi wa nuuri allazi kon mbokk yi war nañ laaj suñu bopp naka la ñuy amee ñetti leer ñun xeet wi ñu nekk ci lëndëm benn waay buy dox nekk ci lëndëm ñu niital ko ñetti torche ba tey waa ji di nekk ci lu lëndëm te ñetti torche projecteur ñu ngi ko ko taalal bien ci kanam bien ci ginnaaw benn baa ngi ko tiim waa ji ba léegi ne man ci lëndëm laa nekk ndax loolu yenu na maana damay laajte yenuwul maana naka la sunu borom nekkee leer sunu yonent nekk leer sunu téere nekk leer ñun ñu nekk ci lëndëm loolu ku nekk war nga koo laaj umma bi waru nekk ci lëndëm ndax seen borom dafa leer seen téere leer seen yonent leer ñun ñu nekk nekk ci lëndëm tey lëndëm goo xam ne kenn mënu ci génn da ngay gis jullit yoo xam ne doo leen xàmmee ndax doo gis jëfi jullit bu ñuy def du ñu mel melokaanu ay jullit du ñu jëf ay jëfi jullit vraiment mu nekk lu metti tey ci umma bi nga xam ne ñun ñoo waroon jiite lépp lépp ci suñuy loxo la waroon nekk mais maala saf ci nasax gu ñu nasax ak nangu dund ci lëndëm gi moo tax ñu àll alquran leer la lima yaxsulu bihi min al ihtida ila sabili najat wa tariqu saada walkamal mbokk yi alquran war nañu xam ne ci la ñuy jëlee njub bu nu yóbbu ci yoon woo xam ne daf nuy texal alquran mooy yoon woo xam ne ku ci jaar texe wala borom xam yonent bi ne man ihtada bi hadiyi bi gayri hadiyihi adallahu llah képp ku dem uti feneen fu dul njub ci alquran yàlla da lay réeral gis ngeen loolu moo tax Sénégal ñu réer na ngeen ma baal nag ndax danoo romb alxuraanu yàlla bi ne am na leneen lu ñuy leeral am na leneen lu ñuy jubal moo tax ñu alku xoolal mbooleem jullit yi fi nekk nga xam ne tey yaa ngi leen di gis di xeeb seen diine wala nga leen di gis ci caaxaan pourtant boo leen laajee yéen waaw ñu ne la gis nga ñun ki ñu àndal wallahi gis nga gis nga gis nga te ci lëndëm lañ nekk lu tax ndax lamp bi leeral benn doomu kese la muy lamp yonent bi muhammad sallallahu alayhi feneen foo ut leer rek da ngay lëndëm ci lëndëm ngay nekk moo tax ñu ne man ibtada képp ku sàkk bi gayri hadiyihi adallahu llah képp ku dem uti njub feneen fu wuuteeg njubu muhammad rek yàlla sànk la kon dafa jub dafa jaadu suñu bëggee jub dañ topp yonent yàlla muhammad xam ngeen lu tax moom kenn la yàlla joxoñ baaraam ci alxuraan ne ko wa in tuti uhu su ngeen ko toppee rek jub kenn kese moom dong la wax damir bi yaudu ila man ila rasul wa in tuti uhu tahtadu yàlla yemu jo mu ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim giñ naa ci sama màggaay yow rek yow yaa fi jubalaate ci jub ku la topp rek jub moo tax xoolal 124000 nit ñoo toppoon yonent 124000 sahaaba wax leen ma ci ku dëng wax leen turu kenn ngeen ne waaw kooku rek dafa dëngoon 124000 ñëpp dañoo jub dem la ngeen jël téere saha xayaatu sahaaba yi ngeen liir ko kenn kuñ la ci nettali da nga yaakaar ne kii yàlla yi moo ko yónni woon moom ci boppam te pourtant yonent bi rek moo leen jubal te ba mu leen jubal fan la leen jële mi ngi leen jële ci sàmm gëléem ñu nekk ci gott ba di sàmmi gëléem mu ñëw def leen ñoo xam ne dañuy jiite ay nit dégg leen lu ma wax de ba mu leen di jubal ci sàmm gëléem la leen jële ñu nekk ay kaw kaw ñoo xam ne xamuñu dara di naan sàngara di bay lang jàng ngeen aaya li tax ñu araamal sàngara daan njaaloo Omar nee na keroog ba aaye wàccee di ñu tere sàngara mu ne dañoo toj mbeddi Medine dimsaani sàngara yi ba naaj bi bi mu tàngee ñi naanul woon dañoo màndi ne allahumma antahayna minhu yàlla ñun pare nañ ci xool gars yi fi ñu nekkoon démb ak fi leen yonent yàlla muhammad indi waaw léegi ñu ne yonent bi jubal lu ñun génération yooyu ak ñi ci tegu ak ñi ci teguwaat ñëpp jub ñun li fi yonent bi indi woon nekk fii sahaaba yi liñ fi indi woon lépp nekk fi ñun mënuñoo jub y a quelque chose kon am na problème ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu defoon ba Aboubacar jub la mu jubale woon Aboubacar ak Umar ak Ousmane ak Ali ak ñeneen ñi ba ci jigéen ña Fatima Khadija ak ñeneen ñi loolu dafay nekkatut mbokk yi loolu mu ngi fi kon la moo tax ñun mënuñu jub problème am na kon nan seetaat suñu bopp ndeysaan dama seetaan ci Facebook bi benn waaye wane Israël immeuble yi sëtëtëtë tali yi la hawla wala quwwata lamp yi fleur yi affaire bi mel ne aljanna mu ne haza huwa israil israil a ngi nii israil bi nga xam ne yéen borom xam-xam yi saa yi ngeen jullee yéen a ngi xulut yéen a ngi xunuut di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla alag mu ne israil a ngi nii rafet mu ne ayna alxalal alxalal fi dua aw fi ulama aw fi suyuux aw fi umma mu ne fan la sikk bi nekk ñu ngi ñaan Israël ñun ñëpp saa yu ñu julee dañuy ñaan Israël yal na ko yàlla alal Israël di gën a am doole kon ñaan yi suñu ñaan yi demul kon war nañu xalaat suñu ñaan yi wala ah saa yu koor ñëwee bu gaa yi di xiyaamul layli bu ñuy xunóot da ngay dégg ñu ne allahumma dammir Israël allahumma allahumma mu ne ay nal xalal ana anumu kon ñaan yàlla nangu ko kon ça veut dire que y a quelque chose lu ñu war a vérifier waat ci ñun allahu akbar waaw parce que affaire bi du ay ñaan ay jëf la yenent bi danaan nangu ñaan kaana mustajabu daa wala est ce que toog na neen yàlla yàlla nga jubal nit ñi kon du xeex waaye bu ngeen jàngee alxuraan ñaata wa qaatilu moo fa nekk affaire bi ay jëf la du toog rek di ñaan kenn ku nekk ñun leer nañu ne doo tëdd sa kawlal julli ba pare tëdd sa kawlal ne allahumma amtir alayya sunduqun minal lan laa laa kenn ko nangu yow yàlla maa ngi lay ñaan nga toog ma nga tool ma benn conteneeru xaalis fii ma tëdd alhamdulilah rabbi sama borom est-ce que ñaan boobu dinañ ko nangu ñaan boobu yaa gën a tey ne kenn du ko nangu boo bëggee yàlla may la xaalis da ngay génn nga dem liggéeyi ay tëdd naan yàlla may ma xaalis loolu yonent bi sax am ko woon yonent bi su ko doon def danaan toog weer ci du tàkk këram weer wala jàngu leen loolu kon mbokk jullit yi ci juróomeel bi wala ñeenteel bi mooy samanu saada wa duxulul janna al imaanu billahi wa rasulihi waaw ku bëgg dugg aljanna ku bëgg texe prix bi mooy gëm yàlla samanu duxulul saada prix texe texe prix bi li ngay joxe pour nga texe mooy ngëm yàlla gëm yonent bi nga dajeeg yàlla fekk yaa ngi jëf-jëf ju baax nga téye ci téeréem bi atamassaku bil kitaabi wa sunna al miyaar anhu bil itisaam loolu day moom mooy dëgg-dëgg mooy nattukaay bi nattukaay bi daal soo bëggee texe soo bëggee dugg aljanna fexeel nga gëm yàlla fexeel nga topp yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kon suñu gàttalee mbokk yi ñaari aaya yooyu mooy yi ñuy jël tey bi isnillah mu nekk suñu dars aoudu billahi min alshaytani arrajim بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما سنو برام يا أيها الناس نينا في سنو برام يدعو سائر الناس مولم نتني يوم لا سنو برام سبحانه وتعالى دي وو ñëpp la yàlla woo baatu annaas li muy tekki mooy ñëpp yaa ayuha annaas ee yéen nit ñi yàlla bàyyiwul kenn baat bi lu muy tekki mooy yéen fàttekat yi annas fal insaan mahalu nisyan doomu aadama mooy magasin fàtte wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya ndeysaan yàlla nee na aadama dama ko woo wax ak moom mu fàtte lan lañ ko waxoon mooy seytaane sa noonu la mooy tandik ko mu fàtte moo tax comme aadama ay jur mooy sunu baay ñu doon ko ci fàtte bi ñun tamit lan lañu fàtte mooy danoo fàtte ne danoo wàcc kaw suuf pour jaamu yàlla ñu fàtte ko ndeysaan ñu ñëw rek suuf daal di neex ñu daal di fàtte ndeysaan ne danoo war a jaamu yàlla yàlla nag ci mbaaxam ak yërmandeem gum nu nammal comme danoo fàtte munuy woo ci baatu yéen fàttekat yi yaa ayyuhan naas ee yéen fàttekat yi fàtte nan ne dañoo waxoon ak yàlla ci azal bam ñu waxee alastu bi rabbikum lan lañ waxoon bala ñun ñëpp ñu ne ah kay yow yàlla yaay suñu borom yàlla wàcce ñu ci kaw suuf suuf bi rafet nga tëx nooy rek ñu fàtte ndeysaan lu ñu waxoon ak suñu borom ñu fàtte waxoon nañ ne yàlla yaay suñu borom danañ la jaamu léegi nag yàlla ci yërmandeem mu woonu ndeysaan yemu ci de mu wàcce ci ñun yoon ay yonent yemu ci de mu jox ñu ay téere pour lan nañu yonent yooyu fàttali lan moo ñu indi woon fii yàlla woonu yaa ayyuhan naas yéen nit ñi qad jaakum ñëw na ci yéen dikke na leen burhaanun lay wu ne weng min rabbikum bu bàyyeekoo ci seen boroom al burhaan al hujja mooy lay wal muraadu bihi huna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li ci yàlla jublu fii mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam leer la wu ne weng lay la wunu yàlla yónnee woo xam ne ëllëg kenn amul lay ñun de gisuñu woon ku yàlla yónni woon ci ñun ku ne yàlla yónniwul woon ci yow kenn am nga problème ndax yàlla yónni woon na yonent bu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk layu leer mu ñëw ne yàlla ma yónni yàlla jox ko dalil bu weer jox ko alquran ndeysaan li benn sëriñ di wax mu ne on njiindee doo deftere alquran nde muhammadu addi nde ndeede deftere kala mo sippire mayre nde liɓma kala mo sippire deftere nde deftere nde liɓma haali gonga de tere biidi téere muhammad nga xam ne mooy lay wi gën a rëy mujisa kéemtaan bi yàlla jox muhammad mu ne téere bi ku mu bëreel daan la mu ne xool leen àddina bi bu mu commencé ba léegi gaa yaa ngi bëreeg téere bi téere bi di leen daan tey boo demoon ci chrétiens yi nga leen lan mooy mujiza isa ñu ne da doon dekkil ku dee nga ne nga ni taalibeem def ko amu ne non non man mënuma ko de nga ñëw ci taalibe Moussa yahud nga ne ko yow lu doon sa kéemtaanu yonent mu ne da doon da doon yoroon yat bu ko dóoree ci géej gi géej gi xar nga ne ko utal yat nga dóor mu ne la non man loolu mënuma ko nga ñëw ci taalibe muhammad luy sa kéemtaan mu ne alquran nga jox ko téere bi li li ndeysaan George doon def George ki ki téere bi tuubaloon ki ma leen nettaloon histoire am George ndeysaan bi mu nekkee xale ñu koy wan alquran problème bu mu am ñu waa ji ubbi liira ko mu jommi mu ne haza al kitab yaxullu kullu muskilatul alam mu ne téere bi mooy lijjanti mboolem problème mu àdduna bi wallahi mooy alquran mu woo waaw kon nag naka la ñuy amee téere bu mel noonu naka la ñuy amee yonent boo xam ne yàlla nee na hujja burhan min rabbikum ba pare ñun xamuñu ko ba Sénégal fii mu toll nii ah ba léegi am na ñu xamul Muhammad de ah est-ce que nangu ngeen ba léegi am na ñoo xam ne Muhammad xamuñu ci lu dul Abdallah baayam Amina yaayam Makka la juddoo Madina la faato bu léegi ni laa wax fi ñu toll nii am ñoo xam ne xamuñ ci yonent bi lu dul loolu ndeysaan kan lan yàlla jubal ixwaan yi sunu borom ne wa anzalna wàcce naa ilaykum ci yéen nuuran ndeysaan muy alquran mubiin leer la goo xam ne da nga doo wax sax ne man gisuma ko ndax leeraluma waaye mubiin yàlla nee na leer gi dane fang nga ciy teg sa bët doo nuur rek leer tout court point daa ne man ne leer googu egsi ci moom mais yàlla nee na mu biin da ne fàng ba leer googu ñëpp a ci jot ñëpp a ko gis li fi nekk mooy bañ ku nekk xam nga ne yonent bi mooy sangu mbindeef yi wala ku nekk xam nga ne alquran bii wala yàlla lu mu ci wax law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu xaasi'an mutasaddian xasiyatillah ñu wàcce ko ci xol yu ndaw yi xol yi mënuñoo toj summa qasat qulubukum min baadi zalik fa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa lu tax wa inna min al hijaara lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaq fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbit min khashyati allah alquran yàlla nee na su ma ko wàcce woon ci montagne yi montagne yi dañuy exploser di naaw yàlla nee na waaye xoolal ma wàcc ko ci seen xol yi seen xol yaa ngi wow ba gën a wow xeer yi ndax am na ci xeer yoo xam ne sax day xotteeku ndox génn ci am na ci xeer yoo xam ne dañuy daanu ngir ragal yàlla yenn saa yi ngeen gis montagne bu bu bu bënn ndox mi di génn ngeen yaakaar ne ndox la du ndox de montagne bi day jooy doo dégg bët boobu di jooy sax nan la ko arab yi tuddee montagne bi bu bënnee ndox bi di génne arab yi nu ñu tuddee loolu aynuma déggal yàlla mu ne fiiha aynun jaariya ak loolu jànguñu ko sewnde boobu di walangaan sax yow nga yaakaar ne li ndox la fekk ndeysaan xeer bi dafa ragal yàlla di jooy ndox mi di sotteeku rongo li ngay gis ni muy muy walalali ndekke rongoñ yi la allahu akbar xoolal loolu ndekke ñun chaque jour ñuy dégg alxuraan bi xol yi di gën a wow te yàlla ne alxuraan bi lan la war a def ci xol ak xel da ko war a dëgëral sabaat alxuraan dafay wàcc ci yonent bi pour may ko sabaat pour dëgëral ko lan moo tax nu am alxuraan te xamuñu alxuraan xoolal tey bu ñu gëmloo Sénégal alxuraan ràkkal la nga gis am na ñoo xam ne bu ñu xëyee la ilaha illallah seen téere yooyu ñuy jàng dañuy concentré wu soo leen nuyoo sax duñu la fay pourtant téere bii moo pëtiyaaba lépp lu nit jàng ci àdduna téere bi ku ko jàng waxuma nga wax bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mu yonent moo doon wax de mu ne laa aqulu alif laam mim xarf bal alif xarf wa laam wa mim soo ne alif laam mim ñaar tiyaaba nga am fanweer kon boo jàngee baqara ba pare looyam pourtant wallahi alazim li lay wan ne ñun gëmunu su su su su yàlla ne woon ku jàng alif laam mim ba mu jeex dix mille la dix mille mu ne malaaka bi taxawal rek ku pare jox ko ku pare rek dix mille saar bu waay jàng rek dix mille ndeysaan kon gars yi luy xew day am embouteillage ñaa kon di nga bëgg a xëy fi ñuy fayeku jee dix mille yi doo mun dem pourtant nag loolu moo am de wallahi lu raw dix mille ngay am waaye dafa am benn cheikh ndeysaan ci facebook bi dafa wane facebook nit ñi ran mu ne alxuraan ñaari nit nekk noonu la amee wax na dëgg ndeysaan mu wane banque yi nit ñi ran mu wane jàkk yi ñetti nit nekk wallahi dëgg la wallahi dëgg la wallahi dëgg la nit ñi diine la moo tumaranke diine la nit ñi teg ginnaaw diine diine wenn waaye day daf ñuy daf ñu doon jox dars mu ne nit ñi ni ñu soofale diine mu ñu koy won misaal mais dafa am benn waaye bu ñu may 4-4 bu bees tax suñ la mayee oto boo xam ne dawagul bu bees ñu dajji ko ci paquet balaa nga koy dawal noo koy def ana dawal ko oto yi ñu xam oto looy def oto balaa nga koy dawal déedéet am na essence bi lépp a ngi ci da nga koy roode dañ koy roode pour mu taamu tali bi soo koy roode nag doo daw lu ndaw ah da ngay daw lu toll ni fii ak Tamba ñëwaat ci ngay xam oto bi baax na wala baaxul léegi waa ji di roode di roode oto bi jabar ji na ko nijaay yóbbaale ma comme long voyage la yóbbaale ñu doom yi ne ko ak ñun ñoom ñëpp ñu yéeg allahu akbar mu tegu oto bi sa waay bu bees tàq la mu ngi ak plein essence loo ko jox rek day dem waa ji ubbi sa waay musique yi ay doom yi nekk ci biir jabar gi fir wi ci biir ndox mu sedd mi kanet yi waa ji daw ba caag rek am ko ko estobé mu taxaw waa ji ne ko du ngeen mu yóbbaale ñu ne ko yow la kan mu ne man la seefa ñu ne allahu akbar mu ne jabar ji demal ci ginnaaw gars yi soit seefa soyez bienvenue ñëwul fii sama wet toogal fii ahlan wa sahlan wa marhaban bik seefa toog ñu déparaat daw daw daw ay kilomètres am ku leen estobé mais yow la ka ne man la euro mu ne CFA CFA dama ci ginnaaw euro kaay fii euro toog waaye tukki boobu war na neex de ñu déparaat ñu dem quelques kilomètres rek am ku estové il a yow la ka mu ne man la dollar euro baal ma mais dama ci ginnaaw quoi euro dem ci ginnaaw dollar toog xanaa tukki boobu war na neex tukki boo xam da ngay tukki ànd ak euro ànd ak dollar ànd ak CFA ànd ak say doom ànd ak sa soxna nga yor oto boo xam ne loo ko jox mu dem tukki boobu war a ne wala ñu daw ay quelques kilomètres ñu dajeeg benn góor gu màgget sol yére yu weex ngi kaalawu kaala bu weex ngi sol dàll yu weex mu ngi yor mu ngi sol mu ngi yor kaamil ci loxo ndey jooram mu ngi yor sijaada loxo càmmoñam mu arrêté leen asalaamaaleykum yërndu verre bi ñu ne waaleykum salaam du ngeen ma yóbbaale ñu ne yow la kan mu ne man la diine chauffeur bi ne diine diine diine diine oto bi fees na ma ne dimbali leen ma ñu ne non oto bi fees na quand même mais mu yéeg ci kaw ñu ne bëgg ñu sàndar muy jàppuñu mu ne ma dugg ci porte bagage ñu ne ko non saag yi foofu maal bi saag yi ñoo fa nekk sunuy saag mu ne léegi kon nu may def mu ne ko non xam nga nooy def mu ne day nax diine da ngay taxaw fii après ma su ma defee demi tour quoi ma jël la quoi ñu dem garaawul quoi ma diine mu ne amul problème ñu dem kilomètre ñu dajeeg benn ponkal benn dañ dëpp benn bombardier taxaw arrête taxaw leen ñu taxaw mu ne yóbbaale leen ma man sax su ngeen ma yóbbaale damay dem fal force bu ngeen ma yóbbaale ñu ne yow la kan mu ne man la dee ñu ne dee lan moo ñuy musal mu ne diine rek ñu ne attention xaaral ñu arrière def demi tour jël diine mu ne déedéet loolu la yàlla naan hatta iza jaahaduhumul mawt qaala rabbir jiwni rabbir jiwun yàlla mu ne kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaq ñun ñëpp loolu la waaw diine mu ne non te xam nga ne diine moo lay musal suba xoola ñii bi ñu leen waxee diine rek ñu ne xaaral ñu arrière waa ji mu ne arrière amatut tey kay terminé waaw tey kay amatul arrière amul avance yàlla nee na bu mbir mi ñëwee la tastaqdimuna saa wala tastaaxiruun amul avance amul arrière correct ndeysaan ñoom ñëpp noonu la ñu noonu la leen dee jëlee yóbbu leen ñu dem safara parce que amuñu diine lan moo ñuy musal mu ne diine te gars yi bëgguñu yóbbaale diine waaw da ngay gis fi sax boo nee nit ñi asalaamaaleykum ñu ne ah ay saa moom kii xanaa Arabie Saoudite la jógee waaye yàlla jaajëfaay ah gars yi ni mu demee nag mu ngi dëgër waaye naka business bi naka town bi nag lu mu laaj ñu loolu loolu ban wax la loolu ba nuyoo la loolu mooy lan ay wax yoo xam ne doo xam lii lu mu doon kenn xamul lan la waaw asalaamualeykum wa rahmatullah yonent bi naa ne sallallahu alayhi wa sallam nee na soo waxee asalaamualeykum ñaata yaaba ngay am nga am fukk nga ni asalaamualeykum wa rahmatullah nga am nga ni asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga am waxe gaa yi jaay jëfaay looyam naka town bi nag looyam naka business bi looyam boo xoolee ñu ne la fii da ngay am fanweer tiyaaba ñu koy wax dëgg yàlla xam nga ñun wérunu seetaat suñu bopp seetaat suñu bopp maanaam nit ñi kenn xamul lu leen dal billaahi wallaahi taala ndax lii lañ doon wax ci ngëlëm tànge rek ngëlëm tànge dem ba tiyaaba yow fëggatoo tiyaaba sa yoon bu ne di lii ku ko def am tiyaaba te pourtant suñ ne ku ko def am xaalis rek di nga ko def da ngay gis benn waaye mu ne waaw oustaz amu leen ñaan boo xam ne ku ko ñaan rek da ngay am xaalis bu ma ko xamoon ma def ko waaw balaa ngay laax jaay kay ngay laax lekk waaw loolooy li wér suñ borom nee na wa anzalna wàcce naa ilaykum ci yéen nuuran leer mu biinan bu bir ne fàng muy yeneen muy alquranul karim mu ne fa amma alladina amanu billah ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla allahu akbar gis nga de waatasamu bi ñu moy ci moom ndekek ndekek ngëm yàlla kese du doy tey jii sax pour nga gëm yàlla kese kese il faut nga moy ci yàlla lan mooy moy ma maana al itisam mooy xam ngeen lan la mooy ku rëcce woon dix-neuvième étage ngay daanu ki ngay daanu rek nga nga nga jàpp ci benn buum nii nga ci jàppee nii doon ngay jàpp ci buum bi buum bi da nga koy matt wërale ko sa bopp takk ko say ndigi képp ko ba pare ne nii ñu ne la sa waay yow la ñuy waxal de nga ne dama matt buum bi dooy wane doo loolu mooy wane ne da ngay xam ne buum bi soo ko bàyyee boo ko bàyyee da ngay alko loolu mooy waatasamu billah na ngeen moy ci yàlla ngeen jàpp ci moom yàlla kenn du ko jàppantu jàppantu soo jàppee soo jàppantoo wallahi mbiri àdduna da lay mbëkk wala bakkan mbëkk la wala seytaane mbëkk la da ngay bàyyi da ngay jàpp bu dëgër loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon dénkaane sunna lan la wax addu alayha bi nawajis màtt leen ko ci seeni dëgëj kon mbir yi ndeke du lu ndaw fa ama allazina amanu billah su fekkente ne ñi gëm yàlla waatasamu bihi ñu ngoy ci moom ñooñu lan la leen yàlla di fay fa sa yudxiluhum yàlla dina leen dugal fi rahmatin minhu ci yërmande bu bàyyi ko ci moom allahuma ijalna minhum amin loolu lan la mooy aljanna gaa yi ndeke yoonu aljanna leer na lan mooy yoon wi mooy gëm yàlla mooy ci yoonu yàlla bi jàpp ci ba mu ne keng ma sàmba du la ci dindi ma demba du la ci génne ay tiital du la ci génne ay xoqatal du la ci génne gars yi dund dund la dee dee la boo dee tamit da ngay dee rek te bisu dund bisu dund la bisu dee bisu dee la ndeysaan maa ngi maa ngi gërëm sama mbokk bi principal laa jógee léegi léegi ci ngoon ki ci ci tàkkusaan ñu muy waaj a jot mu ñëw sama kër ñibbisi di préparer dars bi ma sangoo ba pare nee naa solu rek ma dégg ay yuuxu suñu kër ma xool ci suuf gis benn xale di yéeg deret ji di tuuru ma ne ko lan la mu ne diw moo ma jam paaka ci bët ma xool bët bi gis deret bi di tuuru ma taf bët bi daw dem sapeur yi ñu jël ñu yóbbu sétéo waaw c'était woon ne liggéeyu ñu ñu jubal principal ndeysaan mi ngi naan ma kaaw su may dee nag ma defar defar bu baax ci ci ci oto bi deret bi ñu ngi sol mu naan ma su may dee nag ma defar defar bu baax sama daanaka xaw moon fu ma nekk ndax wax yooyu ñoo ma traumatisé mooy yàlla boo koy gëm waa atasam bi da nga koy ñëpp koy téye ba mu ne këj doo gëmantu doo gëmantu yàlla yàlla kenn du ko gëmantu ngi gëm yàlla këcc waaye ngëmantu duñ dem moo yoonu yàlla yoo aljanna lañ wax mooy rahmatullah aljanna yàlla lan la wax ci aljanna yàlla subhanahu wa taala jalla jalla aljanna mayewu ko inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum aljanna yàlla koy jaay lan la yonent bi wax ci aljanna ala inna silata allahi gaaliya ala inna silata allahi hiya aljanna aljanna ku yaakaar na ngay tëdd nelaw yaa fuus ci diineem ji yambare dara jaralu la ko gis ngeen tey politiciens yi ni leen seen politique bi jaralee ñoom ñoom ñu ngi ci mbedd yi démb barki démb benn maire bu màggata màggat moo ñëw suñu kër di di di daa loolu ko xool sax ma yërëm ko ma ni kii te moo dem mu tuub mu noppalu mu ñëw jaamu yàlla cinquante ans nga nekk ci politique cinquante ans c'est trop mais seytaane mooy def loolu seytaane du la bàyyi la azalu axwihim maadaama arwahum fi ajsadihim kon mbokk yi nanu nanu nanu jàpp ci sunu borom jalla jalaaluhu yàlla nee na ñi nga xam ne dañu maa gëm téye ci man keng danaa leen dugal ci sama yërmande waaye du yem lool rek wa fadlin ak samay xéewal allahu akbar yàlla du yem ci loolu mu ne wa yahdihim dinaa leen jubal ilayhi wa yahdihim ilayhi dinaa leen jubal ci man ci man la ñuy jub xocc waaye jub googu ñoom ñuy jublu ci yàlla lan la leen di jural mooy ñu am siratam mustaqima siratal mustaqim boobu nga xam ne ndeysaan ñu ngi koy ñaan ci sunu ci sunu 24 heures bi ñaata yoon ah li mu néew néew fukk ak juróom-ñaar li mu néew néew kooku mooy kii def faratay kese ki def farata yi xoolal jullit nga taxaw ci kanam yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar naan ko yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na ma teg ci siraatal mustaqim ndeysaan te yow mënoo nekk ci siraatal mustaqim te bis boo xëyee ñaan ko yàlla te mënoo cee tegu ñaari at ñetti at fukki at fukki at ak juróom ñaar fukki at fanweeri at ñeen fukki at ngay ñaan yàlla ku dund ñeen fukki at jullit bi dund ñeen fukki at ñaata yoon la ñaan yàlla fatiha bis mu ne nga ne ihdina sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim te kenn du la gis ci sirata almustaqim loolu mooy na sabab nga ne ihdina sirata almustaqim nga génn dem làmb ja est-ce que làmb bi sirata almustaqim la ah nga génn ah lii mooy li ñu waxoon sànq tontu bi mooy ñëw léegi mooy umma boo xam ne yàlla boroomam leer la yonentam leer la téeram leer la umma boobu di dund ci lëndëm mooy wax ihdina siraatal mustaqim ci jàkk ji génn arrêté taxi dem arène ba wala dem ci dangam nangam ba dem ci caaxaan yi te léegi leen nga ne woon yàlla ihdina siraatal mustaqim nga génn dem ci caaxaan bi loolu mooy wane nangu inna salaata tanha anil fahshaay wal munkar julli day tere nit def lu bon ngay julli di def lu bon kon julli nga kon mbokki julli ci sunu dars tey mu ngi jeexee sunu borom subhanahu wa taala fi mu wax wa yahdihim ilayhi siratan mustaqiman yàlla nee na ku jàpp ci man danaa la indi ci sama bopp waaye dinaa la teg ci siratal mustaqim kon ku bëgg a tegu ci siratal mustaqim looy def mooy fa aminu billahi waatasamu bi gëmal yàlla jàpp yàlla yàlla dugal la ci yërmandeem fay la ay xéewalam waaye mu jubal la ci yoon woowu ne coow muy siraatal mustaqim yanañ ci yàlla teg loolu mooy darsu tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jazakumullah xeer